الحمد لله الحمد لله الذي جعل لكل أمة عيدا ينفردون به بين الأمم وحيدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي صدده ربه تصديدا وآله وصحابته وسلم تسليما مزيدا وصار على نهجهم إلى يوم ومن صار على نهجهم إلى يوم يحصل الأمر فيه وعدا ووعيدا أما بعد أيها المسلمون إن هذه الأيام هي أيام أعياد النصارى وكما تعلمون إخوة الإيمان أن كثيرا من المسلمين يشاركون النصارى في أعيادهم بناء على ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام والنصارى بتوائفهم مختلفون فيه لا بد أن يقلع أن يقلع المسلمون عن هذه العادات الغريبة ولا بد لهم أن يعودوا إلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وإلى كتاب ربهم جل وعلا هذا الأمر الذي ذكرناه أدلة تحريم فيه كافية متكاثرة أما من القرآن الكريم من كتاب ربنا جل وعلا في فاتحة الكتاب قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فذكر جل وعلا أن المسلم يسأل ربه جل وعلا أن يهديه إلى طريق المنعم عليهم وهم المذكورون في سورة النساء ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويسأله اجتناب طريق المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى فعليه أن يجتنب طريق الأمة الغدبية وهي أمة اليهود وطريقة أمة الدلالية وهي أمة النصارى وكذلكم قال جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبئها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وكذلكم قال جل وعلا ولن ترضى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ومن أدلة تهري ومن أدلة على تحريم مشاركة النصارى في أعيادهم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم mbokk yi ñi ngi sant sunu boroom mi nga xam ne mboole mi cant ñeel na ko di ko ñaan mu julli sunu yenente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mim yónni woon ngiree mu teete jaam yi génn leen ci lëndëm yi yóbbu leen ca leerug borom bi yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ilaa yawmiddin ñi ngi sant sunu boroom mi nga xam ne moo ràññee ay jaamam mboole mi jaam yi nekk ci kaw suuf mbooloo mum mën a doon yàlla jagleel na ko feet goo xam ne moom lay feetu na doon feet gu yàlla gërëm la wala gu yàlla gërëmul amma li nga xame ni nii moom mooy islaam sunu borom yàlla it naka noonu la ko tëralale ay feeti boppam yoo xam ne moo ko jagoo waaye mbokk fan yi ñuy dund ñi ngi nekk ci fan yi ñi nga xam ne dañ leen di tudde ay nasaraan muy ay chrétien ñi ngi waajal ay feet waaye waajal googu ndax dañuy gis ne ñoom rek ñoo ko yeyoo ñoom rek ñoo ca nekk déedéet li nga xam ne mooy li metti xol ci penku jant ak sowu jant da ngay gis ne jullit yi tamit ñi ngi jóg ne dañuy waajal feet yooyu feet ba ca gën a mag di bu ñuy tuddee vingt quatre décembre nga xam ne yenn ci jullit yi lu ñuy wax ah isa ibn maryam ca la juddu woon te isa chrétien yi moomuñu ko na am mbokk isa chrétien yi moomuñu ko te bu ñu yàlla jàppalee daañ am beneen xutba boo xam ne daañ ko jagleel sunu yenent bu mag boobu di isa ibn maryam doonte ne li ñuy tax a jóg tey mooy feetu gu ñuy feetu ak juddoom mbokk boo demee ci chrétien yi seen bopp dañoo wuute lu jege fukki wax wax nañ ko ci ban bis la Isa juddu waaye loolu lépp de problème na fekkoon ñoom ñépp sax dëppoo nañ ci ne 24 décembre la juddu ay mbokk jullit xamal ne ñun suñu yoon nekkul ci feet googu nga xam ne nasaraan yi ñoo ko sos ci seen diine commencé di ko woote di ko màggal sunu borom jalla wa ala am na loo xam ne da ko farataal ci ñun ñu war ko koo ñaan fukki yoon ak juróom-ñaar góor ak jigéen mag ak ndaw ñaan googu mooy lan mooy la yàlla wax ci fatihatul kitab jamono bi ngay wax ihdina siraatal mustaqim mooy yàlla yal nañ ma jubal ci yoon bi jubba siraatal lazina an'amta alayhim yoonu ñi nga xam ne da ngaa xiiwal ci ñoom te ñooñu yàlla tudd leen ca suratul nisa sunu borom nee ne ku topp yàlla topp yonent yàlla dana ànd ak ña nga xam ne yàlla leen xéewal mu bokk ca yonent ya ca gaa yu dëggu ya bokk ca ña dee fi sabilillah bokk gaa yu baax yi yàlla gërëm te ñii dañoo rafet ab àndandoo yow jullit ñooñu ngay bëgg yàlla boole laak ñoom ëllëg nga nekk seeni dëkkaale ci aljanna yàlla na yàlla defal ñu ko waaye nag mbokk ba nga paree ci loolu loo wax ghayril maghdubi alayhim wala daalin ay yàlla musalma yoonu ña nga xam ne da nga leen a mere te ñooñu mooy yahudiya yahudiya yi nga xam ne seenu caay-caay seenu mbon yegg na ba sunu borom yàlla mere leen waaye wala daalin mooy nasaraan ya nga xam ne seen ëppal ci diine tax nañu nekk xeet bu réer yow ngay ñaan yàlla subhanahu wa taala mu musal la ci ñaar yooyu kon nekkati jullit daa am aw yoonam yoon woowu mooy wan yoon woowu mooy la sunu borom wax ne yow yonent bi teg naa la ci aw yoon topp ko yàgg sa xeet ca ngalawaay bu leen topp bànneexi ñi nga xam ne xamuñu ñooñu nga xam ne xamuñu ña nga xam ne ñooy seen ndey mooy yahudi ak nasaraan ya te moo ne ñooñu nga xam ne mooy yahudi ak nasaraan yi ndax dañoo tëral seenu yoon rek jaar ca jàll déedéet mbokk jullit ñoom seen itte yépp mooy fexe ba yoon boobu ñu dugal ca ña nga xam ne ñuy jullit ñi sunu borom yàlla subhanahu wa taala ni e yow yonent bi xamal ne yaag jullit ñi yahud ak nasaraan yi duñu kontaan ci yéen mukk lu dul ñu def leen ngeen nekk ay yahud ak i nasaraan waaye day xamal leen ne njubug yàlla dong mooy njub amma képp koo xam ne topp na la nga xam ne mooy yoonu yahud ak nasaraan yi du ko ñeel ci yàlla kenn ku koy féetewoo du ko ñeel ci yàlla kenn ku koy dimbali bokk jullit bu ñu xoolee tey jii adduna bi yàlla def na la nga xamee ne moo ko jiite mooy yahud yooyu ak nasaraan yi soo demee ci mboole mi kër jullit yaa ngi fa fekk télévision ya programme télévision ba boo ko xoolee quatre-vingt-dix pour cent ba mi ngi jóge ci yahud yi ak nasaraan yi ñooy bëgguloo suñu doom yi di leen gëmloo lu leen neex lu mel ne ay Père Noël gëmloo leen ay problème yu fin d'année gëmloo leen ne at mi mi ngi jeex 31 décembre ba nga xamee ne bu ñëwee nga dégg pétard yi di dal nga dégg musique yi di dal amma atum jullit ñi heure bu muy jeex xamuñu ko sax ittewoowuñu ko sax waaye naka noonu itamit ñooñu nga xam ne ñooy kolo yooyu nga xam ne ñoo màndargal yahut ak nasaraan gis nga tey biñ ñëwee suñu réew ba baa bis bi may wax ak yéen tey laaj leen seen doom yi ñu ngi war a jël feet boo leen laajee feetu lan lu ñuy wax mooy feetu noël boo xam ne dana dem ba ëmbaale feetu fin dana ba muy nekk fukki fan ak juróom yoo xam ne dañ ne xale yi kat am ngeen droit noppalu am ngeen droit noos ngir màggal lii loolu ñu màggal lan la amma bu dee koolu teg tabaski suñu amee ñaari fan bari na loolu da ngay gis loolu lépp mbokk da ngay gis na ci xeex bu màgg boobu nga xam ne dañ ñu koy xeex la ca mu am ci dëkk boo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent yi fa nekk ñépp ay jurit la ñu bal lu ëpp loolu sax su ko defee mu war ay yow julit xamal ne da nga am aw yoon yoon woowu mooy sa yoonu yonenti yàlla mooy alquran ak sunna ak fa nga xamee ne fa la sahaaba yi jaaroon sunu borom yàlla subhanahu wa taala ngir won leen ne xaraam na ci julit mu dem di nuru nurulu ay yahud sunu borom wala ay nasaraan sunu borom jalla wa ala ne ay yéen julit ñi moytu leen yoonu yahud ak nasaraan yi képp koo xam ne da leen féetewoo day ca ñoom la bokk loolu mbokk doon lu garaaw lu dangereux sunu borom mu ne woon yatawallahum fa innahu minhum ca ñoom nga bokk loolee nga xam ne mooy féetewoo googu borom xam-xam yi séddale nañ ko ñaari wàll benn bi mooy bëgg nasaraan bi te la nga xam ne daa aju ci wàllu diineem mbokk loolu moom dalay génne ci lislaam dalay dugal nga nekk ab yéefeer comme ñoom bu dee ne la la ngay def daa aju ci ñoom masalan tey bu ñu demee di lu mel ne 24 décembre tey ji da ngay gis ñu bari ci jullit ñi falilahi alhamd xëy na mën nañoo yem ci ne ca la Isaa juddu woon waaye fàttalikul nasaraan yi 24 décembre lu ñuy def buñ dajee seen église yi ak seen daje yi dañoo jàpp ne Isa ibn Maryam doomu yàlla la mooy bis bi yàlla amee doom ca la ñuy màggal ñoom loolu sunu borom nee na bi ko doomu aadama yi waxee mu ne takaadu samawaatu yatafattarna minhu wa tanshaqu l ardu wa taxirru l jibaalu hëdda an daaw lirrahmani walada bi doomu aadama yi jëkkee wax yàlla am na doom asamaan xaw na xotteeku suuf xaw na xar montagne yépp màbb ngiree ñu naan yàlla am na doom te wa ma yanbaghi lirrahmani an yattaxida walada gannaaw ba sunu borom waxee ne laqad ji'tum shay'an idda indi ngeen wax ñoo xam ne ñu bon la lu ñaaw la waaw yow nag mbokk julit nan ngay xoole ñoo xam ne dañoo jiiñ yàlla jalla wa ala doom bis ba ñuy màggal doomu yàlla jooju yow nga ànd ak ñoom di ko féet loolu mbokk njuumte mënul passé loolu nga gis koo xam ne danaan damay jënd samay ganaar dajale sama waa kër mbokk sa yoon nekkul ci loolu loolu musiba la ci seen diina la bokk xamal ne bokk na taxawaay bi gën a rëy bu julli di taxaw ci kaw suuf mooy wane ne yàlla man kat ñii nga xam ne say noonu lañu samay noonu lañu te muy yahudi ak nasaraan yi ak képp ku la weddi looloo tax tey bu doon da ngay julli ñaari rakkay fajar ana yan saar moo ca gën qul yaa ayuha alkaafiruun ak qul huwa allahu ahad da ngay julli ñaari rakka gannaaw timis qul yaa ayuha alkaafiruun qul huwa allahu ahad bal mboole mi ñaari rakk yuy julli xatta tahiyatul masjid xatta boo wuree kaaba ga ba pare bépp ñaari rakk booy julli xamal ne la ca gën mooy qul yaa ayuha alkaafiruun qul huwa allahu ahad lan mooy qul yaa ayuha alkaafiruun mooy yaa ngi woon yéefiri na leen jaamuwuma li ngeen di jaamu fas yéene wu ma koo jaamu maag yéen bokkuñu dara téye leen seen diine ma téye sama diine loolu la qul yaa ayyuhal kaafiruun di di di firi waa léegi nag nan la yow chrétien yi jóge di màggal la nga xam ne mooy juddug Isa nga ànd ca ak ñoom ñu màggal calendrier boo xam ne ñoom ñoo ko sos premier janvier ba 31 décembre ñoom ñoo ko sos ci seeni xalaatu bopp jotewul ak dara ak calendrier ba yàlla subhanahu wa taala tëralaloon waa asamaan ak suuf nga ànd ak ñoom di ko feetu loolee mbokk ñàkk xam mënul passé loolu amma bu dee ne yow ànd ak ñoom ci seen diine waaye seen mbiru adduna nga leen fonkee ba di leen ca roy sunu borom yàlla subhanahu wa taala de mi ngi naan doo fekk mukk xeet boo xam ne gëm nañ yàlla gëm yonent gëm àllaaxira di sopp ñoo xam ne dañoo noonook yàlla noonook ah yonent yàlla même bu doon ñoom dañu nekk seen baay wala seen yaay wala seen frère wala seen giir mbokk jullit dafa am identité boppam daa am personnalité boppam sunu borom jalla wa ala daa di ne jullit ñi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéenay ngën ji xeet bu yàlla génne yéen a war a woote kuy roy yéen la war a roy waaye yéen wuru leen a wuy kenn te wuru leen a roy kenn sunu borom mu ne walillahi la izza wa li rasulihi wa lil muminin ki am personnalité dëgg mooy yàlla ka am personnalité mooy yonent yàlla ka am personnalité mooy kiy jaamu yàlla bokkaale wu ko ak dara ak ka nga xam ne dafa gëm yonent yàlla muhammad amma keneen ku dul moom kooku mooy ki yàlla toroxal mooy ki yàlla mere mooy ki yàlla jiiñ na dafa sànku dafa réer ngalla waay yow julit kooku bu mu nekk sa teete ba nga nekk ci moom ab al toppe mbokk julit nañu góorgóorluwaat ci njaboot gi xamal leen ni li ñuy dégg ci rajo yeeg télévision yi du noonu yellul ñuy feetu feetu nasaraan yi yellul ñu leen di bàyyi ñuy jënd ay pétard di taal ca loolu responsabilité à quatre-vingt-dix-neuf pour cent borom bitig yi ñoo ko def ñoom ña nga xam ne ñoo dem jël loolee jënd ko muy alali doomu jullit yi ñu koy taal di perturber nit ñi di yàqale nga xam ne mooy seen santé daganul ñu nekk di ci félicité benn chrétien loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ay yow mbokk jullit xamal ne sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam ñëw na Madina fekk waa Madina am ñaari feet yoo xam ne ci seen maam lañ ko donne woon yonent bi alayhi salatu wasalaam ne bàyyi leen lii bàyyi leen lii yàlla utal na leen lu ko gën muy tabaski ak korite loolu mu ñuy won ne ndeketee ab jullit amul droit di tëralal boppam ay feet xatta ci diineem waxumaa nag ci diiney keneen loolu tax borom xam-xam yi dañ ne màggal 24 ak 31 ñaari musiba nga ca benn musiba ba créé feet goo xam ne yàlla joxewu ca benn lay ñaareelu musiba ba mooy nuru nuru la nga xam ne mooy nasaraan yi loolu it mu ñuy jàngal mbokk même gannaaw 24 ak 31 ñàkkul ay feet yu bari yoo xam ne yéen a ngi koy dégg nit ñaa ngi ci riir jëmee maa ngi leen di seedeel na ngërëmal yàlla nekku ca maa ngi leen di seedeel na mbir la yoo xam ne ay bidaa la ci diin mbokk jullit ñi amuñu benn bis boo xam ne dañ koy war a daje ne dañuy feetu liggéeyu kenn ku mën a doon ci kaw suuf bu doon looloo mbokk war nañoo daje màggal la waa Badar defoon màggal la nga xam ne mooy fatxu Makka màggal jaayante bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mbokk loolu amul ci biir lislaam nañ ci bàyyi xel bu baax riir mu lu mu bari bari bari te dëppoowul ak ngërëmal yàlla bu mu la yóbbaale sunu borom mu ne laa yastawi alxabiis wa tayib walaw ajabaka kasratu alxabiis fattaqu llaha ya ulul albaab ay yéen ñi nga xam ne yéenay borom xel yu màgg yi mbooloo mi lu mu bari bari riir mi lu mu bari bari lu ñu yëkkati ay neen neen du tee neen nekk neen dëgg nekk dëgg ay yow julit xamal ne julit yi lan lañu am jullit yi li ñu am mooy bisu aljumma mooy daje bi nga xam ne daje ngeen ko yahud yi ñoo koy nar a daje suba ñoom samedi la ñuy màggal nasaraan yi ñooy màggal dimanche loolu muy teqalee daje jullit ñi ci biir semaine bi amma yeneen daje yi ñu yàlla may mooy daje ba ñuy daje ci bisu iid korite wala tabaski wala daje international ba ñuy daje ca Makka amma beneen façon daje bu ñu daje jàpp ne lii kat ak jaamu yàlla la dañ koy jaamoo yàlla maa ngi lay seedeel na ab biddaa la bu ca dem bu ca yónnee bu ca def lenn ca xam ne loolu dañ ko war a moytu benn waaye ngi nii ne man 24 décembre dama ciy profité daal di ciy daje def ko place boo xam ne dañ cay jaamu yàlla di ca wéetal yàlla mbokk loolu njuumte la jaamu yàlla boo koy def bu ko def 24 décembre bu ko def 31 décembre lan mooy war jurit ci ñaari feet yooyu moo nga yemele koog 5 mars ak 15 avril sa yoon bañ caa nekk wallahi laajal sa doom yi nekk France wala Angleterre nga laaj chrétien tubaab ya fa nekk bisu tabaski lu ñuy def faalewuñ ko sax xamuñu sax ne am na naka noonu itamit moo waroon la nga xamee ne mooy feetu nasaraan yi jurit bañ koo faale bañ koo toppatoo kii nga xamee ne ni mooy sunu yonente alayhi salatu wasalaam ñëw na fekk Abu Bakarin Saddiq di tere ay yenn xale yoo xam ne dañu nekkoon ci këram di tëgg seen benn bool di way ci bisu it abubakar ne leen da ngeen di way kaddu seytaane ci kër yonente bi mu ne déedéet abubakar bàyyi leen xeet boo gis dañoo am it ñun nag lii mooy la nga xam ne mooy suñu it kon it mbokk jullit nga la waay doyloo leen li leen yàlla tànnal doyloo leen bisu ajjuma bu màgg bi doyloo leen tabaski ak korite te xam ne yooyu mooy jaamu yàlla ga yàlla gërëm amaa leneen du dul loolu loo ca mën a def yaa ngi cay def bakkaar la gën a néew mën naa yegg sax ba yóbbu la ci shirk bal mën naa yegg sax ba génn la ci lislaam yal na yàlla aaral ñu suñu diine aaral ñu suñu njaboot wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulillah alhamdulillah alladhi la ilaha illa hu لا شريك له لم يكن له صاحبا ولم يتخذ ولدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى سائر إخوانه من الأنبياء وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس نخلد اليهود والنصارى باللام التوكيد والنون لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر دب لدخلتموه وحتى لو أن أحدهم نكه أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك وكلام رسول الله وحي يوحى فهو لا ينطق عن الهوى وما أخبرنا به قد حصل فأنت ترى اليوم واقع بلاد بلاد المسلمين من جهة مشاركتهم للكفار في أعيادهم أمرا مؤلما وواقعا سيئا وإذا تأملنا في شروط أهل الذمة التي تمنع الوصول إلى هذا المستوى التي شرطها عليهم عمر رضي الله عنه تعلمون عظمة هذا الدين فإن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة توقير المسلمين والقيام لهم من مجالسهم إذا أراد المسلمون أن يجلسوا فيه ولا يتشبهون بهم في شيء لا في اللباس ولا غيره bokk julli li ñu ngi santaat sunu borom jalla wa ala borom boobu nga xam ne amul kenn ku bokkal nguuram gi borom boobu musul jël soxna amul doom juru kenn kenn juru ko kenn du nawleem kenn du moroomam lépp ay jaamam lañu moom mi nga xam ne moo yónni woon jaamam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw di teete jaamam yi yeneen ci boobu nga xam ne lu mu wax yàllaa ko ko waxloo du wax mukk ci bànneexu bakkanam wax nañu wax joo xam ne ñiy jàng tuuti arab xam nañ ne wax gënu koo dëgër mu def ca li ñuy tudde laamu tawkid ak nuun daa di ne la tattabi an na maa ngi leen di seedeel na balaa àddunaa tukki sama xeet bii ma gëm daan topp mboolem loo xam ne yahud yi ak nasaraan yi tëral nañ ko ba buñ gisoon yahud yi ak nasaraan yi di dugg ci ay paxi mbëtt ñoom ñépp daan wuti ay paxi mbëtt yu ñu dugg même buñ demoon ci jamono ba yahud yi ak nasaraan yi di sëy ak seeni yaay ñoom it daan dem sëy ak seeni yaay ndax xewet la woo xam ne wu xew la mbokk loolu yonent bee ko wax ca wallahi dana ma sa am loolu nga xam ne ni am na bokk na loo xam ne gis nañ ko mu doon loo xam ne nii lu metti xol lu tasaaroo la mooy tey sunu doom yi lu bari ci ñoom tey dem nañu di ànd ak yahudi ak nasaraan yi yor seeni xalaat seeni corin la ñuy col seeni doxalin la ñuy dox la nga xamee ne nii moom mooy seeni feet ñoom ñoo ko bokk amul benn différence boo demoon tey ci baar yi ci jour 24 ak 31 da ngay gis jullit ñi ñoo fa ëpp soo demoon tey sunu doomi jigéen yi ana ñaate ñooy xam ne bisu 24 ak 31 ca la ñuy ëmbal ila axiri loolu nag mbir la moo xam ne mbokk lan moo ko waral lan moo ko tasaare mooy kilifteefu lislaam amatul tey ci kaw suuf nit ñi tereetuñu buur boo xam ne day dimbali lislaam amul waaye kaay leen ñu dellu gannaaw tuuti ñu dellu gannaaw jamono sahaaba yi keroog bi nga xamee ne Omar ibn Khattab jiite na jullit ñi ñu dem ba tijji fi nga xam ne mooy Palestine nga xam ne moom mooy en daluwaay yahut ak nasaraan ñoom ñëpp foofu mooy seen cosaan da nga xamee ne Omar ubbi na ko am empire bu mag ba nga xam ne moom la jiite woon lan la tëraloon ci yahudi ak nasaraan yi nga xam ne dañ leen a bàyyi woon ci biir l'islam kenn forcé wu leen pour dugg ci l'islam waaye Omar daa tëraloon ci ñoom. ñu nekk aji suufee ci kanamu jullit ñi bokk na luñ tëraloon ci ñoom bépp jataay bu ñu daje bu jullit ñi ñëwee dañoo war a jóg may leen ñu toog dañoo war a daje dañoo dëppoon ak ñoom ne du ñu roy jullit ñi ci dara du ñu sol comme ni jullit ñi di solo bal la nga xamee ne nii moom mooy seeni ngànnaay amuñu droit di ko génne comme ni jullit ñi di yore ay ngànnaay la nga xamee ne mooy seen li nga kaala yi ñuy takk seen digg yi mooy échappe dañ leen ko santoon ñu koy def ngir ku ku leen gis xam ne kaykat ab nasaraan la bokkoon na loo xam ne ni Omar tëraloon na ko ci ñoom mooy kenn du tabax benn église bu bees te la nga xam ne l'islam moo ko jiite amma église lañ jotoon a am tamit lañ leen di tëral ak ñoom mooy kenn du ca teg benn croix boo xam ne day màndargal ab croix ndax xam ngeen mbokk croix daa weddi alquranul karim sunu borom nee na ñoom day nee nañ dañoo daaj Isa ci croix waaye déedéet rayuñu ko daajuñu ko ci ab croix bokk na loo xam ne nii Omar tëraloon na ko ci ñoom mooy heure bu ñuy julli seen église yi duñ yëkkati seen i baat ba doomi jullit ñi di leen dégg bokk na lu Omar tëraloon ci ñoom amuñu droit génn sangara di ko jaay amuñu droit di yar ay mbaam xuux ci kër jullit ñi amuñu droit seen bi sa feet ñuy dajaloo ca mbedd yi loolee mbokk da ngay gis lan moo taxoon Omar ibnu Xattaab def lii lépp mooy ngiree na ñi nga xam ne ñoo nasaraan yi nangu ñoo tuub dugg ci lislaam waaye nañu am ak suufe ba doomi jullit ñi buñ leen gisee duñu mën a roye ci ñoom dara waaye léegi suñ jamonoy tey boo xoolee lan lay def mooy bu feet yi amee xale yi ñu daal di leen commencé jox ay cadeau nga gis ay doomi jullit boo demee tey ci mbedd Dakar yi musicien bi mag ma nga solo ñu Père Noël di solo ñu ngi woote ci grand théâtre ne xale yi yéen ñépp kaay leen mbokk loolu da ngay gis suuxat la ak nasaraan ci sunu xolu doomu jullit ñi ba xale yu bari tey jii bu ñu demee ba màgg la nga xam ne moo leen di gënal gën a yomb ci ñoom mooy nekk la nga xam ne mooy ay nasaraan loolu nag mbokk dafa nekk ci niveau réew mi waaye nga la waay yow ci li nga moom muy sa famille la nga xam ne mooy sa njaboot la nga xamee ne nii moom la sa kaddu mën a yem moytu leen gën jaa màggali moytu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku nuru nuru la aw xeet ca ñoom nga bokk doomu aadama bi ña nga bëgg ngay àndal yowmal qiyaama te képp koo yàgg bëgg da ngay bu yà képp koo yàgg nuru nurulu bu yàggee nga daal di koy bëgg te bëgg ab yéeféer mbokk loolee da ngay gis ne am musiba la yal na yàlla delloo ñu ila siraatil mustaqim yal nañu yàlla won dëgg ca teg ñu ca yoonu dëgg yal na yàlla nangu loo ñu dëgg boole ñu ca ñay woote ca dëgg yal na yàlla musul ñu ci ay yahudi ak nasaraan yi yal na yàlla musul ñu ci seen pas-pas ak seen i doxalin yal na yàlla delloo julit ñi ca jukkoy lislaam delloo leen ci pas-pasu lislaam allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar rabbana la tuzig qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين